monsieur le gouverneur màggal Daaru Xudoos yàgg nañ kaa def waaye dafa am beneen cachet boo xam ni dafa am importance mooy dafa daje dajeek centenaire téeméeraat du caaxaan ca màggal gi tey du sëriñ mu Mountakha ki mi nga xam ne mooy xalif général de moo jël engagement que màggal gi nii lañ ko war a feete ren ndax Serigne Touba cent ans waxoon Cheikh Moustapha ne bis bi ko gënal ci àdduna mooy bis bi muy daje ak boroomam te bis boobee moo am cent ans loolu tax ñu bëgg koo marqué cent yi kon loolu lañ bëgg mu mu mu am beneen taxawaay daal au niveau de tout les tout les euh, euh, services tout les services de l'État ñu ñu taxawa ci noonu.

sama réew sama xeet sama mbokk sama liggéey bima ma def ba war a ñibbisiwaat mu nekk sama wa réew ñu am texe fii ci am texe ci àllaaxira kon kooku bu ko yàlla defee mu ñaanoon bisam bobu mi ñëw borom muy dem ba am temerat ku def sénégalais wala ngëb julli rek war nga ci am beneen taxawaay boo xam ne nii parce que Serigne Touba c'est pas c'est c'est universaliste du du appartenance mouridisme wala ñu mel noonu Serigne Touba ñëpp a ko moom ndax lislaam la fi nekkal l'islam loolu liggéey ak liggéeyal Seydina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam xam ne sëñ taxaa moo joxe ndigal ci bis bi ñu màggal ko ak sëñ Ahmadul Maxtar suñu maam Cheikh Mahmoud Moustapha ndax moom ci boppam ku ne xam nga ne li Serigne Touba bëggoon lépp defal na ko sëñ Touba nee na ko woon bu ma génnee àdduna ñett yi laa bëgg ku ko defal mooy sama yaram wii bu génnee àdduna nag ma yóbbu Touba ca période boobu lu jafe woon la woon ndax période boobu Touba bi am na luñ bëggoon ak luñ naroon malheureusement sëñ bi xam na ko doomam yi bu Moustapha am gis-gis vision sens d'organisation fexe na ba jël baayam indi ko Touba ci kenn yëgu ko kon réussir na point boobu. kon nak am nañ djukal tay ji sante Serigne Touba ci bis bi ñu defal waaye am nañ devoir am nañ devoir ñu remercier Cheikh Moustapha wan ko wan ko nit ñi ndax xañ ñu bari ñi ngi dudd ci année ay année 70 80 jëm jëm légui xalé yoy mën nañu bañ comprendre Cheikh Moustapha mën nañu bañ xam pour Cheikh Moustapha wa ñun ñi fi nek te xam lim liggéey ndax nag àdduna moom bala nga xam lan moy njariñu lii fa mu départ précurseur yi war nañ leen xam. ñu ngi sant ñëpp di gërëm ñëpp ñaan yàlla yàlla du si yàlla yóbbu ak jàmm te li liñ ci bëgg li ci sëñ Cheikh Mamadou Moustapha bëgg sëñ Ahmadou Makhtar bëgg ko ci njabootu sëñ Tuubaa gépp bëgg ko ci yàlla defal na ko